Sidi moom sax day man moom seq nañu teraanga comme li dal ma Ndiaye rek moo ko dal moom moom it seet na waaw am na artistes na artiste boo xalaat fii man moom seq nañu teraanga. mais ci ñaari bis yi mooy le Bercy lan saalum muy Sidi Diop at Waly ah. xam nga waali moom Bercy Saloum bi ba mu ko njëkkee tëgg yàgg na boobu ci kaso bi laa nekk di ko seetaan ci télé bi. Mhm. far yàlla dogal nattu bi mooy corona bi jugaat mu fomm ko bu ko bu ko jàppaatee beneen jour la 11 Siri Diop jàppaat beneen jour Siri Diop tamit il faut mu am ñoo xam ne dañ koy conseiller. waaw dafa manqué ñu koy xalaatal bu baax waxuma ko ngir critiquer ko waxuma ko ngir dara ndax boo nekkee ci mbir waale sa xarit la sa nit la du ngeen ay noon ndax waale du mos a yor paaka di ko jam Sidi Diop Sidi Diop du mos a paaka di ko jam waale kon du ngeen ay noon bu waale tëgee biir si Saalum jàpp bisam te Wally sax contrat la rek dañ koo tëgg moom fay ko pour mu dem donc bu loolu amee ñu jàpp ne la 11 la njëkkoon na ko jàpp ñu fomm mu jàppal ko la 11 Sidi Diop waroon na xaar ba beneen mois wala beneen jour pour mën a def soit soit soirée moom pour mën a def concert am foofu. dégg naa sax ñu ne entrée yi moom 1000 francs la ak 500 ak 500 euh, comprendre nga dégg naa ñu ne. Sidi entrée yi 500 la at mille francs xam nga 500 ak 1000 francs dafa wuteet koo xam ne dañuy 10 000 la ak 20 000 at ay table doog di ñëw. comprendre nga. te Wally dafa njëkk a jàpp bisam waajal ko bu Sidi ñëwaatee jàpp moom it bis boobu même chose même lépp day mel ne siidi day day nekk di di di xeexat te sénégalais bëggul loolu. sénégalais yi ni ngi leen seen buggul bëggul kuy kuy kuy kuy kuy topp nit ba mu sës xam nga doon na fi def su Wally génnee son mu génne ko loolu loolu yëpp affaire u biis la daanaka yooyu amul njariñ waaye fii dafa def erreur bu baax a baax a baax a baax waroon naa xool beneen dat mu jàpp ko. mais pas le 11 bi nga xam ne moom la Wally jàpp mu koy jàpp maa ngi koy ñaan na moom Sidi conseiller ko na wutaat ñi nga xam ne ñoo koy jox xel mu di xalaataat bu baax boo waree dugg ci dara di ko xoolaat Sidi Diop at euh, Wally mos na tëgg euh, grand théâtre Pape Diouf di tëgg di tëgg kii Cissesse mais teewul Pape fees na Sidi Diop fe fees na loolu lan la parce que Cissesse contrat la woon te Wally dafa jour Cissesse bi dafa tombeen moom dafa waroon a def foofu soirée mais taxul mu am ay kii yët kii yët kii na xool fii ñooñu doon jaar mu jëm fa jaar mais bu mut ay rival diggante ma at Waly te Waly man mosuma toog muy wax ci Sidy Diop lu ñaaw mosuma ko am te it mayut nit Waly ñàkkut fayda bay may nit muy ñëw di wax ci Sidy Diop lu ñaaw mu koy déglu parce que amul temps boobu Waly xam nga lu ko ñor dama jàpp ne kii lii moo ko ñor mooy musique gu Sénégal mooy taxawu musique gu Sénégal Sidy Diop bi taxawu musique senegal la bëgg waaye su la nit jiitoo da ngay xam ne nit jiitu na la nga fexee xool la muy def ngeen ànd ca def ko.